dernier point situation de crise. C'est encore que je détiens à la disposition des études de la sécurité du Sénégal la déclaration de ce médecin militaire que eux ils connaissent parce qu'il est assermenté bi parce que balu dañ ko normaliser à travers le monde c'est le code ISO boobu euh, euh, un spécialiste balistique Je naa mon ami Momar Law, am na lu mu si jàng tuuti <laughs> ci wàllu balistique boo jëlee bal bi xool ko numéro de matricule bi di ah kii balu police la wala nga ne eh matricule bi la eh kon qui gendarmerie Voilà, wala eh armée la waaye xale yi ñi leen du balu police du balu gendarmerie du balu armée duñ ko leeral ñu xam ku yebal ça, yi euh, saay saay ñuy voilà c'est eh, dañ leen ci avons dit. voilà légui nak eh, eh, ponk bu mu mu di wa mu di situation politique dans bi nga xamné dit dëkk mu metti depuis 2021. mu metti lool ndax Jamra amna lu mu ci doxone ak Jacques je vais pas revenir là-dessus def y ñaari conférence de presse and the yeah. Abdjak Imam Yusuf Sarbu Gejawai, and euh, Imam Cheikh Diop, le chroniqueur euh, du desk religieux Walfadiri, Fadjiri. Maintenant, nous 18, je pense. Alors, donc, euh, depuis 2021, situation Bagni, euh, Bagni, euh, l'imou évolué Bariou. Alors, d'ailleurs, euh, moi, je ben un diarbat. Euh, mu ngay militer ci ben section que bu te ngey xam nga jarbat ak nijaay dañuy toñante mu ne way tonto yeen da ngeen bari masla makki kenn masla ak moom eh, ki ki xamul masla xamul jalok épreuve de force moko fi jëlé ah bàyyi yow dal ñu nañ vraiment ma ko waa yow ñaata yoon nga dem ci naaj bi fi ci place de l'Obélisque dox ba ñak maq poussière ak saxaaru lacrymogène Macky Sall dictateur Macky Sall ñaata ñaata ak nga ko def lan la la jëriñ <laughs> doo leen changer de stratégie xeex stratégie sur stratégie la ma ne ko yow bi nga xam ne dafa bokk ci benn daayira ndeysaan boo xam ne yonent bi la ñu day jël comme référence euh, ma ne ko seen sang bu tedd bi bu réussir mission ci stratégie la ko teg benn exemple rek laa ci cité bi bi mu demee gàddaay jógee màkk jëm Médine top 12 ans pas pour fuir waaye ci ndigalu borom bi lako défé pendant 12 ans suñu borom diko ko diko di diko dooleel di ak baatin ba mu paré mu ne ko léegi dellul màkk nga sa mission parce que foog drapeau l'islam ni samp ko bobu l'islam euh màkk jahilé yi ño fa euh les xuraysi mécréants jaamu ko tu xërëm ño fa newoon

léegi kilifa Xuraysi yi daal di une délégation dirigée par jëmm ji ñuy ibn Suhayb ibnu Amr ñu dem dogaale ji yonent bi à 14 km à l'est de la Mecque euh, ci yoon ba jëm Médine ñi di ko wax euh, Udaybiya daal di fa def ay barrières yonent bi ñëw ak euh, gàngooram kii maa ko expliqué gosse bi pour wan ko exemple ne ko da nga bëgg yonent bi yonent est un exemple même de de la mise en œuvre de stratégie pour atteindre ces ces ces objectifs alors gars yi ñëw baare yent bi ñew ba ci barrière bi sahib ibnu Amar ne ko waaye foo jëm mu ne Makka la jëm ñu ne ko wax nañu la ne ci persona non grata ci indésirable ndax ñun suñu ñetti témèr ak juroom fukki yalla yi ñi jaamu depuis suñu jamono mamati ba lay suñu aajo fajoowul yow nga bëgg sa yalla bu kenn dul gis te kenn la nga ne nañu bay yoy yépp topal demal sa yoon fi fi do fi dugg mu ne makka la jëm léegi bi Quraysh yi sa détermination ak calme ak sérénité bi mu woné ba paré xol itam contingent militaire bi mu andal à cheval et à dos de chameau hyper armé Quraysh yi xam ne kii li fi il y négocier a mi daal opté pour la négociation bu ko neexoon daal un passage en force amone na capacité militairement hmm. mais deret ju bari day tout ba muy jógee màkk bàyyi na fa ay jarbaatam ay tàntam ay nijaayam nangam nangam mu ne danaa opter pour la négociation et le dialogue alors chefu Quraysh yi ne ko waaw dinañ la bàyyi nga dugg mais à une condition nañu xaatim benn pacte moom la ñuy wax le bu am ay ponk mënuñu lim ponk yëpp waaye dama ciy jukki ñaar gars yi ne ko premièrement est-ce que bu ñu la bàyyee nga dugg a màkk ba ngay gàddaay yaa douze ans mu am ñu ànd ak yow bàbbeeku jëm Medine dem ba ci digg ba trahir la daw delluwaat Màkka est-ce que ñooñu boo leen gisee Màkka doo def ay acte de représailles contre ñoom mu ne noonu man du ma def benn fayuntu ak ñoom ñu ne point numéro deux bi ngay gàddaay jógee Màkka dem Medine bàyyi woon nga fi ay bien ay géttu bay géttu gëléem ak nag ak ay propriété foncière te yooyu yëpp waa Màkka jël nañ ko mbaa doo fi ñëw di réclamer quoi que ce soit mu ne du ma réclamer dara ñu topp ko ba pacte bi jeex yonent bi par stratégie mu des signature chef Khoureychi signé sanga bu tedd bi comme que c'est une lettre, benn assistant am signé à sa place ñu daal di jël pacte bi delloo ko délégation euh, Sohaybu Ibnu Amar kooku xool ko ne waa mais yow yaa dëgër bopp yonent bi si masla mu ne ko lu xew mu ne ko yaa ngi signé Muhammadu Rasulullah moy ki yalla yónni te ñun wax nañ la mille fois reconnaître ñu ne yalla la yónni mu ne waa kon looyun bëgg gaay ne ko man nga signé mohammed ibn Abdallah ndax xamna ni Abdallah moy sa wayjur mu ne waa d'accord jox lañu ka jege mu ne ana ana fi mohammed Rasulullah ne mu ne mu ngi ni mu ne ko baré ko waji baré ko mu ne ko remplacer ko par mohammed ibn Abdallah mu dal di ko remplacer par mohammed ibn Abdallah ñu jël ko jox ko Quraysh gay xol ne wala wa ke yëgati leen barrière yi assez jallal mu dal di dug lan la ko wañ dara mu dugg mak la je résume kaa bëgg la jubal andak ak Seydina Aliou parce que c'est sa première mission na bokkaale jeex màkka tey loolu ko suñu borom wax te màkka kaaba ga c'était le point central du Bokale. waxna len leen sànq tafsir quran bu am solo bu alaaji Ibu Saaxo wax limna na dieux ay totem ay xërem yu fa ne yii dañ leen tabax ci ban yu am forme kanaara yi ñu mol leen ci përëm ay forme beuy etc famille bu nek nak ak ak sa ak sa bos euh, té nak bu ci da fay refléter le niveau économique de telle famille ndax famille bu nek da nga daan def bu la famille baykat la bala nga dem bay da ngay ñew ci sa totem gardien da ngay euh, ak soow ak nangam nga def ko daal di ñaan yalla may la nawet bu barkel bu da ngay may sa doom kazalika amna la ba chaque chaque totem était lié à une famille Et totem bi boko nga niveau économique bu famille par exemple buñu xolé ben totem totem euh, kanaara ñu tabax ko ci ban wa ku mom li ñu ne ci des famille ngeen la ñu né ay eh, ñi day ay ndóol lañu mënuñu dara ñu daal bon nga dañ ko dans de massif ko ñu yi la ah, oh, ñoo c'est le Yoruba de de de la non la Euh, population yi def ndiiraan topp ko ñu naan fu mu jëm Kaaba ga ñu naan déedéet xanaa ñëwee ko kay fa jëm jëmu fa fa la jëm mu ñëw rek ànd ak sëñ na Aliou ne dagg dugg ci biir kilifa yëpp taxaw ne kii de deux choses l'une soit mu dee ci biir wala bu génnee dana dof alors ci gàttal euh, yàlla yoon ni message Seydina Jibril alayhi salaam daal di wax yonent bi ne ko suñu borom ne daal lii yëpp a dégg mu ne ko lii yëpp naka